wax depuis 2014 la njëkk wax ni que ci dossier yi suñu jëli wàdd la ne j'ai mis mon coude là moom moo ko wax donc kon moom coude boobu yàgg na ko wax mais bu demee waat ba 2020 31 décembre 2020 moom mu génne ko waat ci làmmiñam publiquement quelques semaines après ñu gis fi kaaw Ousmane Sonko euh, ak li nga xam ne moom la jur comme corollaire de dégâts et de violence dama yaakaar na keroog ba mu koy wax yàlla lii moo taxoon mu dugal ko ci gémmiñam donc tey grosso modo mooy que on appelle à un apaisement mm-hmm. apaisement nag du mbirum naxante problème mu Sénégal la mm-hmm. parce que gis nañ ñi seen bakkan gis nañ ñi fi ñàkk gis nañ ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi ñoom ñëpp c'est des Sénégalais tey li war président de la République mooy que au-delà des demandes yi nga xam ne nit ñi nga koy ñaan mooy diine gi politique géeg yooyu c'est-à-dire que pour une fois qu'il soit au-dessus du lot mu xam ne il est le président de tous les sénégalais et non le président d'une partie des sénégalais. le père de la nation. nag taxaw nag. Mhm. la nga xam ne ku ci nekk ci ñun am nga ci droit ñu jox la ko justice ñu bàyyi justice bi def liggéeyam législative ñu bàyyi leen également ñu def seen liggéey mhm. lii rek moo mën a indi jàmm ci dëkk bi. d'accord ok euh, waaw xam nga euh, man damay wax rek ci. Euh, par rapport ak euh, xam nga li ñuy wax médecin après la mort. Mm. Macky Sall moom la def nañu waxante dëgg bi muy wax boobu <coughs> mort yi am na ba pare loolu moo tax tubaab bi naan médecin après la mort kon ba tax na euh, fu mu nekk nii. Mm-hmm. il fallait que gis nga booy jiite réew ou bien sa kër yow rek boo yow sa kër boo déggee coow rek yow borom kër da nga war a jóg rek jógal waxal. na ñëpp yem seen place loolu loolu loolu lañ koy reproché ci lii dégg nga euh, beneen affaire boo xam ne euh, foo xam ne ànduma ci ak euh, ak a Seye mm-hmm. c'est que man bi may soog a commencé dafa mel ni man déggu leen man sama wax xam nga Aïda Sougou sax mu ngi may kii nii mais man li may wax tey jii man ñëpp laa teg di xoolal ñëpp laa boole mooy xam nga lan la ni ñuy politiquer ci Sénégal yow nag dama la dégg nga naan Sonko mooy alter ak yow sa discours bi ma dégg. c'est mooy mooy li fi am ba léegi. kon ce qui veut dire yéen boo fi ñëwaatee tamit nii rek lay doon noonu c'est éternel recommencement ce sera la même chose xam nga loolu man li may xaar ci yéen jigéen ñi yéen ñi mën a changer mooy que il faut ngeen changer moom mooy ay ay député yoo xam ne dañ dañu naan non non lu président wax rek waa man moom laay def man daal lu kii wax rek loolu laa bëgg gis nga man loolu laa bëgg. ci tey jii pour ñu changer parce que tant que gis nga li ñuy wax nii yëpp tant que changé wuñu ko euh, maanaam doxalinu politicien wu Sénégal waa esprit bi mhm. tant que changé wuñu ko bi deexi wallahi tàllaa dëkk bi nii rek lay continuer parce que politique du noonu politique du ni ngeen koy defee wax nit ci dëgg wax li nga xam ne moo mën a am dégg nga ba tax na comme bu boobaa nit yi mën na am yaa parce que bul fàtte ne bul fàtte Eh, eh, Macky Sall bi ñu koy fal nit yi dañu am yaakaar ci moom Abdoulaye Wade bi ñu koy fal nit yi am yaakaar ci moom yaakaar dafa rëy yaakaar moo foo nit ki bu dee ba am yaakaar ci yow ba jël la fal la dégg nga bu gisul nga doxal comme ni nga doon doxalee non vraiment du neex comme ni ko léegi sànq eh, wax Pape Sane waxee combien depuis bi mu faloo ba léegi am na ay wax yoo xam ne nga man tey jii ñu ngi doon wax sànq ni acte fort gis nga discours am bii acte fort bi mu mënoon poser xam nga mooy ban man acte fort bi ah trois ministres am yooyu yooyu lay dàq limogé leen xam nga mooy kan Malick Sall Aïssata Tall Sall ak ministre de l'intérieur xam nga lu tax wax bi. ah ministre ah, eh, eh, de l'intérieur ñi ma ko tudd. non non Antoine ma de. lay rek. non non non non non moom mi sax xam nga moom man kiiw ma ko. xam nga maa xalaat ministre yi dañoo bare ba nga xam ne doo xam sax kii nu mu tudd. waaw eggale dégg mhm. loolu mooy premier act bi mu waxoon njëkk a posé dégg nga waaye ñëw di lay wax ay yoo xam ne ay jàppal fii ay nangam fii xaar ba ah ay nit soog a di wax ñuy soog a def man man man man li ma bëgg tey jii moom mooy lenn. moom mooy que man wax yi ngeen di wax yëpp man na kiwu moom mais mooy confiance diggante la population ak les politiciens tant que amélioré tant que kiwuñu ko dëgg-dëgg dëkk bii nii rek lay continuer mhm. alors ñu jàll ci euh, Alioune Sow avant ñuy ñëw ci oustaz dellu si waat encore ci ñaari gan yi Alioune Sow. bah je pas je parle de quoi. ah mais de quoi on parle. oui non mais parce que moi je suis coupé un petit peu dans mon élan euh, et, c'est pas très évident parce que je je des fois je, ne suis pas trop mais bon. enfin je sais pas je, vois juste une chose man euh, ci ci ci mbir mi xanaa demaat un petit peu dans le sens de. de de de de de Cheikh de Cheikh Diagne Gomis parce que euh, euh finalement euh, lan la ñuy wax ah titre bi lan la def dafa ne euh, Macky Sall dama tend la carotte mais. oui euh, Macky Sall la carotte c'est vrai euh, euh, wàcce na wa wàññi na wàññi na parce que finalement madame moi, je ne suis pas du ma kii man man ay far yooyu xamuma ko moi je suis je damay chercher dëgg rek fu dëgg nekk rek dëgg nekk rek man maa ngi fa nekkuma di ay di faralaate wala nekk yooyu parce que man xaw ma Pastef musuma leen jege musuma musuma leen nuyu musuma nuyu seen patron donc euh, Pastef teewuma fi pour di wax man yooyu daf may xaw a kase tuuti parce lu nekkul bëgguma ñu ma koy defal donc daf may a wàññi tuuti eh bien vous avez bien réussi là-dessus mais dëkku ñu jéem a waxante dëgg rek te te te yàlla tax xam nga dafa am ay fee yoo xam ne dafa am ci réew mi euh, euh, Macky Sall coow gi bari na Sénégal euh, ay nit dee nañu je pense que man j'ai toujours pensé que ni wax naa ko ci yeneen i plateau que ni Macky Sall dafa dafa ñëw un petit peu en retard Euh, euh, parce que à mon man comme li may mës a dénoncer Macky Sall euh, je je ne pense pas que mu am un bon entourage parce que bu amoon un bon entourage erreur yu bari du ko def même avant bii sax quelqu'un qui a un bon entourage du taxaw ne man vaccin yi boo leen ci kilifa réew ah, vaccin yi boo leen ko jëlu ma dem mayee ko bitim réew yaa ngi dégg day day day mën a seral jaarale wax bi feneen encourager Sénégalais pour ñu waaye boo leen ko jëlu ma may wala ak sa jabar ak sa njaboot en privé mais loolu lu ñuy taxaw ay caméra àdduna di la wax ngay wax loolu loolu je crois ay erreurs yoo xam ne la dafa nekk ci moom te il faut à mon sens le corriger les les corriger ces erreurs là loolu benn loolu loolu benn la beneen bi moom mooy moom mooy mooy euh, euh, euh, au Sénégal on ne peut pas avoir véritablement de démocratie Cheikh Diagne Gomis mi ngi expliqué un petit peu par rapport ak comment comment on adule nos leaders en général te te man loolu loolu man jikkowuma loolu parce que man gëm naa ni mhm. son excellence par exemple comme ni ma noonu loolu du lu ñu war a lu ñu warati waxati même tubaab yi ñu ko créé loon bindal ñu ko suñu constitution ñu naan son excellence wala honorable ñoom waxatuñ ko sax ci seen i réew bàyyi nañ ko bu yàgg donc loolu moo a a besoin de ça son excellence Abdoulaye Wade son excellence Abdou Diouf son excellence yooyu dafa war a jeex à mon sens parce que loolu yëpp ci yoonu changement la war a nekk beneen bi moom mooy je rêverais aussi madame un jour que euh, qu'on puisse voir que euh, élection am ñu ne ñu ne euh, au PASTEF def nañu def nañu def nañu def nañu ay primaires et que et que Fadilou Keïta Fadilou Keïta moom moo finalement moom moo moom moo nekk moom moo nekk candidat mm-hmm. PASTEF wala Bassirou Diomaye Faye man man foofu laa toll ci ci ci ci sama gis-gisu démocratie donc moo tax damay des fois constitue un problème parce que des euh, euh, du dañuy wax dara rek que euh, dama la contre c'est boo waxee nit dara rek bu d'accord dañuy contre moi je suis contre et je suis pour rien je suis j'essaie de soulever la boo ma waxoon loo xam ne dëgg la léegi lu ma xam ne woon je change tout de suite d'avis damay changer avis immédiatement donc demeewul noonu au Sénégal il n'y a pas même boo koy xool suñu parti d'opposition yi c'est toujours la même chose madame a eu à avoir cette cette attitude tout niveau boobu ci boppam mooy décider kan moo jiite mais fii hmm. képp ku ñu teg leader yow yaay dem yow yaay yow yow nekk candidat pour élection présidentielle te yow yaa war a nekk président ñeneen ñi wuñ ko parce que yow yaa jiite parti bi ba ba ba cappaandaw ga ba jour ba ah, état d'esprit boobu damay xeex man chaque jour pour ñu changer ko hmm. dans ce pays là ba léegi amul parce que finalement noonu ñu koy jàppee noonu muy Ousmane Sonko muy yeneen parti ay ñoom euh, Bathily gis ñoo jikko boobu boo nekkee président jikko état d'esprit boobu boobu la ñu ànd ak yow ci biir palais de la république comportement bi dañ lay déifier dañ def yàlla mm. machin moo tax des fois sax ay yenn mots yi du ma koy bëgg moo tax may neen yu bari war nañ ko dindi ci Sénégal dindi ay excellence dindi ay honorable parce que un député c'est un monsieur c'est un représentant du peuple tout simplement il n'est pas honorable il est honorable en quoi loolu tubaab bi ñoo ko doon wax te dafa amoon histoire a moo taxoon ko et puis lan moo tax léegi tubaab bi son excellence Barack Obama wala son excellence amatul c'est fini yooyu dañ ko war a jeexal parce que wax boobu sax tubaab yi ñu ngi ñu koy xoolee ba tey te xam ne ñoom ñoo ñu ko tegaloon te ñoom dépassé nañ lool donc ñun bu ñu bëggee évoluer li li baax dañ ko dañ koy continuer di ko garder ci tubaab yi mais li bon dañ koy dindi jéem a faire avancer le pays mais avancer le pays madame dans la vérité dans la vérité mooy fépp fu ñu gis dëgg rek ñu wax xam nga tey ji nii très honnêtement madame bu fekkoon ni tey euh, euh, euh, tey Sall avant affaire bi di wax naa fii bi yeneen émission yu may suba teel bi newoon naa leen Macky Sall avant dara di xewan ah, newoon naa leen bés bu ko téyee di ngeen ko rëccu coow dina bari man waxoon naa loolu man mu mun mën na nga dem xool ko léegi altine ba laa ko wax àllarba la affaire bi am nit ki laaj ma ma ne ko bés bu ko téyee il faut pas qu'il fasse cette erreur là mu wax ko ma ne ko ma ne ko Karim Wade du Ousmane Sonko parce que Karim Wade ma expliqué lan moo tax Karim Wade euh, euh, affaire bi yomboon ci moom ma expliqué lan moo tax euh, Khalifa Sall affaire bi yomboon ci moom parce que Khalifa Sall dafa am ñoo xam ne ci biir groupe am ñoom dañ ko doon xeex bëgguñu ko woon donc c'était beaucoup plus facile euh, kaaw kaaw Karim aussi ni gars ñëwee ci ak changement bi ak yooyu yu bees yi dañu bëggoon euh, yooyu dafa wax waroon a jeex surtout par rapport ak Karim Wade yi xam ni ñu ñëwoon dañ ko guuxaloon benn affaire donc ils avaient envie de changement donc loolu moo tax affaire bi yomb mais il est en train de dire des choses dafay wax yoo xam ne nee naa la man mosuma ko jox la ko euh, euh, xëy day naag moom ci affaire u Pape Alé Niang laa ko seen na leen mooy livre boobu mu doon def mais man mosuma day ñoom xawma leen je suis un intellectuel qui réfléchit par rapport à la situation du pays essaie de faire avancer le schlimmbing te pour loolu il faut absolument madame qu'on se la vérité te des fois malgré votre courage il faut savoir général, on est toujours à 100% d'accord avec le président ou alors on cherche toujours des prétextes pour corriger erreur yi nga xam ne président da ko mais président bu defee erreur dañ ne taxaw ne ko mais lii erreur la on sait très bien que ni fukki nit waruñu woon xaar moo nekk ay fukki nit wala fukki nit ak benn dee am ñu dogal commencé loolu maanaam li ñu waroon def dans un pays comme ça mooy alerter le président de la mais moom nit kese la du du du du dëmm jiital parce que dañu am nit wër ko ñooñu ko wër et puis fii ni ñu lay wëree la mooy problème bi Sénégal c'est parce que duñu la wax dëgg parce que dañuy ragal bu ñu la waxee dëgg nit ñi dañ lay mere wala nga perte sa place parce que ku nekk yaa ngi seete sa propre confort te erreur yooyu nag moom mun na xalaat benn affaire sax man dama war a wax wala waruma wax man dama war a mën a am changement dam attendez qu'on réfléchisse lan moo war a mën a am changement ci Macky Sall bi kenn deewee avant avant avant avant waxul bi gi bare balaa kenn di dee ak bi kenn deewee waxul ñaar dee waxul fukki nit dee coow gi bari situation bi carabinée muy doog a wax qu'est-ce qui a fait que ni ci diggante boobu mu changé est-ce que da doon xaar situation bi carabinée wu déet mais des fois il faut nga am ay kàngam ci sa wet yoo xam ne ñoom ñoo lay wax ni ci enjeu bi fii la toll mbir mi nii la président dama la bëgg nga wax dëgg dama yaay le père de la nation yow yaay kilifa réew mi yow yaay nekk président réew mi parce que am ñoo xam ne ñi ngi lay bul xaar kilifa diine ñëw taxaw di wax ak parce que même yow yow yaa nekk kilifa diine ci biir république lañu nekk te république boobu yow yaa ko jiite monsieur le président de la donc essayez d'être à la hauteur bul mer bul machin waa ji nii comme nee nañu yoon bii la bëgg jaar te am na droit parce que on est dans une république droit de circuler euh, am nga ko dem fu la neex l'essentiel mooy fi la yóbbu na fa yegg te bu fa naree yegg moom nañ ko nañ ko accompagner accompagner yóbbu ko ba ci béréb ba jarul ñu koy imposer benn yoon et du parce que finalement dama am kees tuuti parce que ñemetuma la sax wax ni. gis ay nervi parce que nervi yooyu ñooñu ma gis pourtant ay nervi lañ. ñemetuma la ñu jël pourtant loolu il faut oser le dire quand même. une erreur y des fautes Antoine Diome ne devait pas intervenir de cette manière là pour que président bi di ko deux jours après. ce n'est pas bon il faut organiser la République. équilibrer le enfin. Aliou merci il à dire. Euh, parce que toujours koy xool la preuve ku ci nekk bu génnee ci pouvoir bi dañ naan entourage ñoo ko seetaanal on a vu avec le l' président Abdou Diouf ba muy wax ni xamuloon ni mbuusu meew juróomi dërëm lay jar. donc c' toujours ñenn ñoo xam ne ils sont tapis autour du chef de l' état ñi ils veulent sa défaite te yéen Ousmane Sonko wax na ko nee am na ay ñoo xamante ni ñu ngi ci biir président ci biir euh, maanaam gouvernement bi wër ko voilà. ñu jàll ci oustaz Mohamed ñu ngi may def signe Cheikh dese nañu encore on est à Oustaz ñu ñëw ci yow tamit génnu chef de l'État bi nan nga ko jàngatee ak euh, njeexital gi mu mën a am euh, ci lii nga xamante ni moo di kilifa diine yi taxawoon nañ ko euh, ak Cheikh sëñ Mountakha Bassirou ñaan gi nga xam ne tamit sàkku na ko ci ñu dalal. waa xam naa man moom li ciy wax ci nit koo xam ne li nekkoon yitteem ca ba yëf yi dooree ba léegi. Mm-hmm. mooy jàmm am alhamdulilah laa ciy wax. Mm-hmm. ndax. du ma wax ne yeex na walla gaaw na waaye danaa sant yàlla ci am gi mu am ndax ak lu mën a xew même bu fekkoonte ne delluwul ginnaaw waxit ay wi du yam fii kon su dee def na ko dañu koy sant yàlla mm-hmm. bu baax a baax beneen bi ci desit mooy damay bëgg nit ñi di xàmmee ñuy waxal politik ak ñuy waxal l'islam dafa am loo xam ne léeg kilifa dina ko moom muy dëggam waaye pour defar jàmm tax mu bàyyi lay dëggam soxna Rama dama lay jox beneen anecdote ci yonent bi ndax man sama wax yëpp day dellu ci yonent bi ndax bëgguma ëllëg ñu ne ma kaay li nga waxoon foo ko teg lu may wax dama koy utal référence ci yonent bi dafa am lu ñuy tuddee sulxul xudaybiya hmm. sulxul xudaybiya benn pacte la boo xam ne yonent bi signé na ko ak waa Makka bi mu demee ma diina ba jóge Medina bëgg a aj si bëgg a ñëw Makkatal Mukarram bi mu ñëwee ba ci place boobu di Xudaybiya fa la waa Makka yabal benn délégation ne ko dem leen wax ak yonent bi duñ ko mën a bàyyi mu dugg ren Makka dafay ñibbi ba déwén su déwénee mu doog a ñëw non seulement day ñibbi mais dañuy def ak moom benn pacte boo xam ne dañ koy signer pour nga li ma ci gën a intéressé balaa ñoo sori premier acte bi njëkk a bindal yonent bi ci kaw mooy dafa jox aliyun ne aliyun bindal muhammadu rasulillah aliyun bind muhammadu rasulillah waa Makka ne ko dindil ba mu set buñ gëmoon ne yaay muhammadu rasulillah dara ñu takk suñuy xare gàdd suñuy jaas si fas yéene rayante ak pour et pourtant yonent bi werantewul ne mooy Muhammadu Rasulullah mais def na Seydina Ali dindi ko comme loolu la ñu bañ bëgguñu koo dégg dindi ko waaye teewul kenn mënta tere maay Muhammadu Rasulullah loolu nag président moo ko moom ak lu nit mën a wax du tee moom la yàlla jox cëru mooy président de la république ak lu ko nit mën a wax yàllaa ko def yonent bi dafa dindi lu lool Alioune ne ko xaw ma kuy dindi Muhammadu Rasulullah waaye du man Alioune man man du ma bind sa tur wii ak ni ko yàlla bindee ma di ko effacé waat yonent bi naa leen jox ma bindukaay bi mu jox ko comme yonent bi ummi yu la woon mu ne Alioune li ñuy wax naa ko effacé anamu ñu wan ko ko moom ci boppam mu effacé ko boppam mm-hmm. bàyyi fa Muhammad ibnu Abdallah Muhammad doomu Abdallah ji ngir lan bëgg jàmm am mm-hmm. gis nga man su jàmm xase ñëw ak waxtu wum ñëwee dama koy sant yàlla mooy lii kilifa diine yi def sëñ Muntaxa yal na yàlla dolli ko dëgëral dolli ko fee yàggal li mu def nii tey duñ ne dafa yeex ñëw na lii la ñu bëgg ruumandaat nañ ñoom li ñu war a wax ci suuf ba pare bi demee ba jàmm am ñu dellusiwaat si nag wax ca kaw gis nga dafa am kàddu goo xam ne su la leeree ne bu jógee fitna yëngu ak lu mu mën a def ci yow na la jaral nga wan ko ngir bañ fitna tàkk Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh da daan wax ne su ma guuxoon benn guuxu ndox mu ne ci sama gémmiñ gi ma dem ba toll ci sukuraat ñu ne ma guuxu ndox bi bu jàllee di nga mucc di nga dund waaye réew mi dee ngi bëgg a tàkk soo ci yàbbee guuxu ndox mi mu fay waaye da ngay dee alajab du ne pare naa pour yàbbi guuxu ndox moomu ci réew mi ngir jàmm am man Cheikh Al Hadj ma dee foofu la nit ñi war a toll ci bëgg jàmm am ci réew mi nit ñi nañu yéenante jàmm te yéenante teraanga gis nga soxna euh, soxna Ramatoulaye li ci réew mi yëpp coow li yëpp mooy kenn ku ne jàpp nga ne yaa gën sa morom yaa ko gën a placé ci nangam yaa ko gën a baax yaa ko gën a yaa ko gën a yaa gën a yaa ko gën fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bi man ittaqa alquran nee na bu kenn ne maa fi gën kenn yàllaa xam ki gën nanu àndandoo jéem a xool lu defar pénc mi nu di ko waxtaane mm-hmm. te bàyyi di waxtaane waxtaani par parloo at taassub baaxul maam Cheikh Ahmed Tidiane si almaktuum 1960 la bind xasida 1960 bi ñuy doog a jot indépendance ne yaa sénégalu bakayta bukaa an sénégal jooy nga jooy yu nga lu la yóbbee sa jooy yi li taxawuli subbaani sa jeunesse bi danoo dem ba jaaxle fippu ak mertaal sam réew 1960 la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ah. almaktuum bind xasida boobu bi Senghor di jot bi ñu bi ñu jot suñu indépendance. ndeysaan la Serigne Cheikh bi jëf waay 1960 daa am loo xam ne rahmatullahi nañuy delluwaat ci kilifa diine yi. solution lañ ci réew mi. billahi solution lañ ci réew mi. ndax yàlla may na leen. basira boo xam ne mayu ko ñenn ñi. tey la ñu toog naan Serigne Cheikh moo ñu ne woon day bu ngeen sangul réew mi. tey la ñu toog naan El Hadj Abdou moo ñu ne woon tey la ñu toog naan Serigne Saliou moo ñu ne woon tey la ñu toog naan Serigne Abdou Lahad moo ñu ne woon ba kañ ñu bëgg a dund loolu ilal abad Sid Lamine mii rahmatullahi alayhi bis bu ne ñu génnee ay audio bis bu ne ñu génnee ay vidéo bu ko mësaana wax ñu ne dafa far dafa jeng dafa lan mooy réew mi ba ku wax dëgg ñu ne da ngaa jeng lan mooy réew mi ba ku wax dëgg ñu ne da ngaa parparloo inna ta gis nga taasub baaxul mm-hmm. kum neex nag sañ ngaa far far am na de waaye par parloo Serigne Cheikh nee na day yàqum pénc nanu àndandoo dellu si xam ne réew mi rek la nu am billaahi bu réew mi tàkkee du ñu dem Mali du ñu dem Gabon fii la ñuy des bu ñuy dund fii la ñuy des bu nuy dee fii la ñuy suul kon amuñu lu ëpp réew mi Cheikh Al Hadj Abdoul moo daan wax ne boo duggee ci gaal yor sa ëmb bul toog naan yàlla naa mucc wala yàlla na ëmb bi mucc mm. neel yàlla na gaal gi mucc bu gaal gi muccee nga mucc sa ëmb mucc te gaal gi mooy réew mi moom dong la ñoom incha allah jërëjëf waxtaan bi rafet na soxna may mën ñu bàyyi la nga wax sa tàggatu kàddu gu mujj laata ñuy ñëw soxna Aïda ndax euh, di remercier vraiment euh, oustaz mhm. ci waxtaan am bu am solo bi euh, sama kàddu yu mujj rek mooy dama bëggoon rek leerlu ci lenn ma j'ai parlé d'alternative c'est mm. pas pour prôner euh, euh, euh, une idolâtrie sur la personne de Ousmane Sonko il n'est pas un messie il aime le répéter mais dama ni nous nous sommes des Sénégalais et nous voulons un changement dans ce pays nous avons espoir sur une personne Pastef est un parti structuré que Ousmane Sonko n'a pas créé Ousmane Sonko sampul Pastef contrairement ak yeneen parti yi nga xam ne ka fa nekk moo koy samp di wax la fay xew Pastef ay doomu Sénégal yu nekk ci système di liggéey xam li xew ci réew mi ñoo ko samp jël ko moom ne ko na ko jiite ñi mel ni man ñëw fekk si leen ba ñëw parti bi juróom-ñaari weer la am kon nag su ñu ñëwee ndax ku ne am nañu am nañu yaakaar Cheikh dañuy conclure moo tax waaw may leen ñu euh, ñu euh, mën naa yeggali waaw nga xam ni nag euh, loolu noonu su amee choix bu amee mm-hmm. parti baa koy décider te loolu la ñu décidé. Mhm. kon suñuy wax xëy na du yenn saay du ñàkk ñuy ñuy lim ñuy lim suñu suñu leader. Mhm. mais c'est le projet de société. de PASTEF que nous avons pour un Sénégal meilleur. que nous voulons tout simplement Merci. offrir au Sénégalais li ma ciy mujjanteel di wax rek mooy euh, xëy na euh, benn question lay doon mooy ñaata nit la Macky Sall dàq ci ñu wax troisième mandat avant tey ji coow lii di am dafa jékki-jékki nag waxal ko boppam mu jur lu bëree bëree bëri sénégalais yi réagir donc foog naa ni askan wi bëgguñu xeex bi bëgguñu lu dul jàmm ci réew mi euh, euh, di di di di di di tëjee rek lenn di ñaanal ñi nga xam ne dañ leen euh, tëye mhm. ñuy ñaan yàlla ñu ñu bàyyi leen mhm. muy ñi nga xam ne ci ñun la ñu bokk ak ñi nga xam ne feneen la ñu bokk di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan ci weeru jigéen ñi yàlla na yàlla yëkkati jigéen te yàlla jox jigéen ñi force ñu mën a continuer seen liggéey si may réew a merci Maimouna Dieye euh, soxna Aïda yooyu ñu bàyyi la kàddu jërë ngeen jëf en tout cas li nga li may tëjee rek mm. mooy euh, di leen wax ne situation bi ni mu demee woon rek moo waral waraloon réaction yooyu waaye nag bu ñu waxtaanee rek dañuy xam ne ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu bëgg mais suñ demee ba nga xam ne nag damay sentir ne man damaa wéet faw ma nag ma ma def samay pexe loolu mooy loolu mooy politique waaw non non dama ko sentir léegi nag fi may wax mooy ah, man je suis ah, élément de la diaspora ni nga ko waxee madame gis nga lewee de fonds yi ngay wax nii nemmee ko fonds yi man maa représenté woon Macky Sall États-Unis yow tam ma ma ma wax la ci benn affaire man maa gën a nangu primaire xam nga ku dëkk Amérique war a xam luy démocrate ak républicain xam luy primaire ba cëppaandaw ga xam nga kon man la loolu xam naa ko te loolu man dama ko accepté pour wan la ni ñun duñu ay bàyyi ma yoo xam ne dañuy topp nit ki aveuglément hmm. suñ demee ba war a toog waxtaan xam ne lii dafa war a nekk dañ ciy hmm. waxtaan hmm. yaa xam nag nga soo waxee yaa xam nag nga soo waxee daañu la déglu wala duñ la déglu mais di nga wax Cheikh Tidiane léegi li nga xam ne moom foofu laay fi fi muy lu leer mooy Cheikh Tidiane yow na boo sa bopp xam nga lu tax na boo nangu naa li nga wax. ah waaw ah, yow tey ku laal mbër yi nga wax. Ah, ah. ku laal joueur yi nga wax. loolu moo ma dal parce que bokkuñu ci affaire bi ñu leen bëgg a ji. non man ministre bëgg a ji. waaw gi dafa jot. waaw léegi léegi fi may daaneele rek. muy leeral sénégalais yi. Mm-hmm. nañu ñaan yàlla jàmm. Mm-hmm. taxaar élection ñëw. gis nga diggante. Pastef ak Benno Bokk Yaakaar du combat. Yaawu Jaal ak Ama Balde du combat benn amateur du ko fekke 58 pour cent du moroomu 15 pour cent. te bu ñu demee ba ca cëppaandaw ga di ngeen xam ne du benn. man li man may wax. li may conclure mais li may conclure. ma doon wax ci politiciens yi mu ngi mais Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane am naa droit conclure à ma façon. lu ma neex mën naa koo conclure. wala de invité fi nag du tax nga nekk sama buur. voilà. léegi nag man li may wax te muy loo xam ne dama ko gëm dama koy gëm mooy xam ne Sénégal mm-hmm. li ngeen wax rek benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar damay prôné jàmm encore une fois mm-hmm. xale yi sunu njaboot na nañu ñaan yàlla jàmm mais nag bu ñu nangu mukk ñu ñuy exposé di rey suñuy doom di denc seen i doom foofu rek lay daaneel mi ngoog euh, ñu jaajëfalaat leen bu baax mbokk téléspectateurs yi fay euh, tey la ñuy fii la ñuy yem ak yéen ba la prochaine fois yow moom beneen yoon dañuy tëj sa micro mi ngoog ñu jaajëfal Cheikh Tidiane Diop jaajëfal également sëñ Saliou Bey euh, Amdi Sidibé jaajëfal Mami Kanté ñi nekkoon ci caméra bi Babacar Diouf Mballo Ousin Ousseynou Sall ñëpp ñu jàppal jàppandiku ñu jaajëfal leen joxante di jël daje dig daje ba waa <laughs> juba incha allah.